ci gaañu gaañu Senenews mi ñu jox xibaar bi nee na ñetti oto daal ñoo bokk ci boobule l'accident boo xam ne am na ci ñoo xam ni seeni gaañu gaañu sax jéggi na dayoo ngir ya nag moo ngi xewee ca Taïba njaay fi nga xam ne soriwul dara centrale éolienne bi beneen accident ngi nii boo xam ni daanaka ñu ngi koy fekk ca Seneweb ba mu ñeel ñaari conteneur yoo xam ne dañoo daanu ci benn njaga njaay yi accident ba mu ngi amee ca croisement Cambérène suñu sukkandikoo ci site bi di wax ni ñi nga xam ne jëlee na ci ñoom xibaar bi nee nañu daal conteneur ya dara teewu ko woon ca kaw camion ba looloo tax kon ba ñu daanu am na nag kenn koo xam ne moo ci amee gaañu gaañu mooy chauffeur ba beneen mbir yi nii boo xam ne ñeel na juge bi di Souleymane Teliko mi nga xam ni igage dañ ko doon déglu muy ay déglu yoo xam ne nag daanaka taxul woon mu yomb lool ci ñoom ndax wax ja dëgëroon na suñu sukkandikoo ci igfm point sn mi ñuy jox xibaar bi di wax ni moom telu ko daanakay àndul woon moom kese ndax àndoon nag ay avocat lu ci mel ni maître Ciré Clédor li ak maître ba ci li loolee nag moom moo neexul ñi nga xam ne ñoom ñooy inspecteur yi nga xam ne ñoom ñoo ko doon laaj seeni question meneen mbir a nii moo xam ne mu ngi ñeel Lamine Diack ñu ne am na nag lenn loo xam ne daanaka juge yi mën nañ ci sukkandiku ngir am yërmande ci ki fi jiite woon I2AF ki ñu ko xamal di Dakar Actu ci wàllu tàggat yaram ren moom daanaka mu ngi xalaat bu baax a baax beneen doomu Sénégal boo xam ni bëgg na mu ñëw foofee ca club ba Sénégal set moo ñu ko xamal mu ne góol bii di Edouard Mendy nga xam ne dafa war a jógee ren dem fa fële ca Chelsea daanaka bëgg nañu beneen góol bii di doomu Sénégal di Alfred Gomis daan di koy wutu foofee ca Dijon ñu ne Dijon ci wàllu boppam sax dàqul ba jël lu toll wala mu ëpp boog fukki million ak juróom ngir weccoo ko kii nga xam ne moom mooy seen góol ba fa nekk jamono ji di Alfred Gomis loolee Sénégal set moom mu ñu ko xamal suñ demee ci bitim réew nag Mali web li muy ragal mooy mu am jàmmarloo boo xam ne mën na dox diggante CNSP

benn boo xam ne mu nga nekk foofee ca Mali ñu naan ko Mali web tour du web bi jeex na jërë ngeen jëf ci déglu bi jërëjëf euh,